وكان الشيطان للإنسان خذولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Fass Odessène nuyu na leen siyaar leen di leen wax jumaa mubaarak jumaa mubaarak ñu ngi leen nuyu te e leen ñaanal ajjuma yi jàmm te di ko sàkku ci yéen kon ñu dellu si waat rek ci sunu aaya bi aaya bu diis bu naqaree dégg waaw jaaroon naa fi nag dugaloon ko fi laajte ji mu mel ni borom xam-xam yi neen ci biir yëpp dañoo dëppoo woon ji ni rek euh, ku la gën a ragal yàlla moola gën man rek xanaa maa ci doon déng déngi tuuti ndax li ci doon jaaxal mooy yeneen wax yi nga xam ne day wër aaya bi tey nag damay dikkaat ngir gën a leerluwaat rek ngoog aaya bi nga xam ne mooy inna akramakum indallahi atqaakum muy aaya ma jaaxal ndax Euh, buñ nee daal ku la gën a jige ku la gën a ragal yàlla moo la gën a moo moo la gën waaw may laaj léegi lan moo tax dafay mel ni boo xoolee ci xadis yeeg yooyu day xaw a duurante ak aaya bi euh, ndax xadis yi da nga ciy dégg léegi comme bu dee ñun waa ahlu sunna dañuy wax ni euh, ñi gën dañ leen a tànn te man jàpp naa ñi gën doo leen fekk ci alxuraan man laa jox ci misaal ne la bu nee na Aboubacar Sadiq moo gën ñu teg ca Omar teg ca Ousmane teg ca Seydina Ali léegi na ñooñu euh, nun mën a gënee euh, yeneen nit ñi te ñoom yàlla tudd leen ci alxuraan te it ñu nekkan fa ak seeni moroom yi saxaaba léegi comme que yàlla moo xam ki gën léegi nit ñi nan lañ mën a def ba xam ni ñooñu ñoo gën loolu mën jaaxal na ma lool ba ca toppit ñu demaat ci hadis yi nii xarnu boobu ñoo gën xarnu ba ca topp moo ci gën xarnu ba ca toppaat moo gën maanaam nit ñi judd ci nit ñooñu ñoo gën ci nit ñi daal léegi nan la nit ñi mën a xamee loolu te aaya bi moom ñu yàlla moo xam man nag loolu dafa lënt ci man maa ngi koy laaj ñëpp rek. salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu waa Fass Sow Dessin di jaar waa mbokk euh, laay jii ma wàccee nii mu nekk ci suratul anfal dama lay laaj maanaam laaya ji ñan la yàlla di wax comme nee ñoom Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak yooyu ak ñi nga tudd noonu ñëpp yàlla tudd leen ci alquran ak la nga ci wax yëpp léegi maanaam laaya ji yow boo ko doon firi xam nga yàlla moom dafa am ñu muy ñu muy wax léegi ñi muy wax ñan la ñan lañ wala wallazina amanu wa hajaru wa jaadoo fi sabilillahi wallazina aawaw wa nasaru ulaaykumul muminun xaqan yàlla nee na ñii ñooy julit dëggantaan mu teg ci nag ne law maxfiratun wa risqun karim léegi maxfiratun risqun karim yàlla na ne jéggal na leen am nañ wërsëg wu tedd léegi laay ji firil ma ko ak maanaam ñan la yàlla di wax nii ñan mooy muhaajiriin yi waaw kay asalaamaaleykum macha allah Modou Diankha maa def mbaa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah message yi nga ma transféré gis naa aaya bi nga xam na it Euh, moom lañ ci boole ak ki ciy wax euh, ah kii bii de moom sujet euh, sujet bi yaakaar naa man mi tontu woon naa ci keroog yooyu nga xam ne moom la ñuy wax ci ngëneel li comme ni ma ko waxee aaya boobu moom ci tedd nga lay wax sax waxul ci ngëneel kii laaj nag laaj bi mu laaj ne gars yi li ñuy wax naan diw moo gën topp ci diw topp ci diw topp ci diw wax naan xam xarnu boobu moo gën topp xarnu ba ca topp ak ak beneen xarnu ba ca topp loolu moom wax dëgg yàlla amul delluwaay ci téere bi yàlla ndax keroog maa ngi ciy laaj sa ab laaj na ñoom suñu waxee ne xarnu boobu moo gën xarnu boobu moo gën ci ñan ndax moo gën ci su fekkee dañuy commencé maanaam di natt ci yonent bi mu fi nekkee wala dañuy natt ba àdduna ko foofu léegi loolu tamit ay mbir la yoo xam ne yu mat a wax la ndax li am solo rek mooy xam nga yàlla ni muy jàngalee muy wax rek ku dul bàyyi xel téeréem lu ci bari day bëri lu la rëcc. ndax yàlla dëgg-dëgg moom loolu loolu nekkul mbir moo xam ne dañu ciy taxawloo di taxawloo di ñu taxawloo ci kan moo gën ak ku gënul parce que dëgg-dëgg solo si nekkul ci ku gën ak ku gënul solo si li am solo mooy nit ki moom li ko war diggante moom ak boromam mu def ko ca nam ko war a defee ci jamono bi nga xam ne ci la yàlla dogal mu judd ca di dund xama su fekkee dañoo wax na ci misaal siècle bii moo gën siècle bi topp siècle bi topp siècle bi maa siècle bi moo gën topp siècle bi topp siècle bi xam nga loolu moom wax dëgg yàlla wax la boo xam ne moom xëy na ñi koy wax sax maa dañ dul bàyyi xel yenn détails yi rek waaye adduna moom naka jekk ni mu mel nii la mës a mel adduna maam jamono bu ne day am ñu baax day am ñu bon jamono bu ne nag day am ñu baax day am ñu bon ak mbon nag dina am jamono boo xam ne day gën a fës ndax léegi su mel ni jamono bii ñu toll nga xam ne internet beeg yu baree baree bari léegi la gën a def comme comme léegi information léegi la gën a bari internet beeg yëpp day tax ci day day bokk ci liy gën a yaatal waaye soo xoolee maanaam nit ñi li nga xam ne daan nañ ko def di rayante ngir nguur ci ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko te lu ci bari di ko doon ko def te ñoom ñu doon wax na ay way gëm lañu soo xoolee loolu nekkatul loo xam ne da koy gis ci jamono bii ñu toll da ngay gis ñoo xam ne dañuy wax ne ñoom ñëpp na lañ jëm ñu jaakaarloo ci xare di xeex ba am ñoo xam ne ca lañ dee nga xam ne yooyu ay mbir la yoo xam ne moom daanaka euh, maanaam téere yi rek ñoo ko mën a wax waaye loolu ku yeewu dina xam ne lii moom ne mënul nekk waxu yàlla. yàlla mom la wax maam kako ñor ci lam doon wax mo doon yonent bi motax tuddu nako lam doon wara wax ci mom wax nako ko yonent bi am ndaw la woon ñëwoon na jottali la ba nopi su fi bayiko ña nga xamne ño nekkon nekkoon suñu weddi woon it loolu yoonu yonent bi neeku ca ndax comme nonu yàlla diko waxe ci alcorane rek sotu ali imran bi mi wax ne ay 44 ki ay 144 bi wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat min xablihi rusulu afa in mata aw khutila mu teg ci ne in khalabtum ala akhabikum léegi yàlla lolou bim koy laaj ñan la ko don laaj laaju ñuko won ñun parce que ñun fekke wuñ jamonoom bay fekke mom manam mu dee wala bok ñu ray ko ñun fekke wuñ jamonoom way ñu fekke jamonoom te gëmoon ñom la yàlla di laaj lolou ndax yonent bi su de won wala ñu ray ko ndax ñom dañuy ëlbati seeni testan yàlla boobu ñooñu la ko don laaj kon deug deug mbir mi fofu la nek waaw dëgg-dëgg mbir mi foofu la nekk kon am na ci yoo xam ne comme li may wax rek ngëneel daal du dëgg-dëgg mbir mi du foofu ndax kii loolu muy wax ci wàllu ci ci wàllu siècle yooyu ñun biñ ciy tontu fan yee wax nañ ci wax nañ ci euh, feetu siècle yooyu loolu gaa yi ñoom ñoo ko jàngale ndax loolu li muy tegtale na mooy yenent bi xarnu bi mu doon dund moo gën xarnu yi jiitu yëpp mooy ci ay Ibrahima ak yenent yi jiitu yëpp ndax moom xarnu moo gën xarnu yooyu wala bok ñom dañoo commencé nat rek ci yonent bi bi mi ma maam ñu tudd waaye ci xarnu bam doon dundu jëm ci li nga xamne mo dess ci aduna bi sha allah kon yoy ay mbir la yo xamne mat na bayyi xel kon deug deug lolu moy solo dal euh ki tamit ñew di wax indi aya bi walladina hajaru wa jahadu fi wa jahadu walladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladina aawaw wa nasaru mune ne day laaj fofu yalla ñan lay wax maanaam na yooyu ñoo ñan mais dafa war a xam ne aaya bi waxul loolu rek parce que yàlla dane walladina amanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillah gaa yi nga xam ne ñoom dañoo gëm te gàddaay tey jihaad ci yoonu yàlla waaye nag yàlla waxul ñooñu rek ci aaya bi dafa wax ne walladina aawaw wa nasaru nga xam ne muhaajiruuna yeeg ansaar yi yëpp a ngi ca walladina aawaw wa nasaru ñi nga xam ne ñoom ñoo leen làq te dimbale leen ñi leen làq te dimbale leen yaa gis na kon ñaari gu ñoo xam ne ñaari kuréel yëpp dugg nañ ci biir léegi nag moom ngir bëgg a wane ne xëy na ñooñu ñoo gën mu jeexal aay bi mu wax aay bi ulaayka humul muminuuna xaqan lahum magfiratun wa rizqun karim te bi ma ko déggee it wax dëgg yàlla bi ma déggee aaya bi gis aaya bi ma déggee moom li mu wax ci audio bi gis aaya bi xam naa dama dafa mel ne dafa bëgg a wane ne ñooñu yàlla nee na ñooñu ñooy muumin xaqan ñoo ñooy muminuna ah, xaqan waaye xam nga comme deug deug limay wax rek moy xeyna ñak bayyi xel alquran moy waral sax mu ñew bëgg jël aya bi manam def ko ab lay ndax aya bi amul fenn fu yalla wax ne ñi ñoo gën ci nit ñi lolu amul te lu wax rek moy ñooñu ñom ay way gëm deug lañ mu ne ñooñu ñel na leen njéggal ak wërsekk wu tedd léegi nag dafa mel ni moom foofu la bëgg a sukkandiku pour wax ne kon ñooñu bokk ñoom ñeneen ñi waaye dafa am lu muy fàtte parce que ñooñu ñoom loolu am nañ ko ba pare ndax loolu la yàlla wax kon ñoom am nañ ko ba pare waaye nag yàlla dafa yemul foofu ba tey ci même saar bi mu dugg mi suratu anfal su delloo ci njëlbeenu saar ba rek ñaareelu aaya ba ak ñetteel beeg ñeenteel ba la ca yàlla wax dafa gën a ubbeeku mooy li ma doon wax rek li yàlla wax ne walladina tabahum bi ihsaanin keroog ci audio boobu loolu maanaam du bunt bu tëju maanaam moomin xaqan boobu ba keroog àdduna tukki ay nit dañ koy mën a nekk ndax dañoo am ay critères yoo xam ne mooy wane ne ñii ay muumin xaqan lañ ñii ay muumin xaqan lañ te loolu yàlla da ko wax ci alquran na dem ci suratu anfal yàlla wax ne innama al muminuuna alladina ida zukira allahu wajilat xulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu te loolu it am solo la <laughs> zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluun wax boobu wax bu am solo la maanaam bokkut ak ñi nga xam ne soo ñëwee di tari ci ñoom ay yàlla maanaam ñi wut wax naan ah yéen daal nangam wala yéen daal nangam kon ñooñu moom xam naa ne soo moytuwul aaya bi da leen refoulé moom. <laughs> nga xam ne dëgg-dëgg noonu la demee ñi nga xam ne maanaam weddi waxu yàlla moo leen gën a yomb moo gën a yomb weddi waxu nit waxu yenn nit ñi daal wax da ngay gis ne ñooñu kon su boobaa dañuy am problème ci aaya bi ndax yàlla da ne innamal muminuna alladina ida zukira allahu wajilat xulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون yàlla teg ci ne alladina yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfixuun yàlla lan la jeexalee wax ja mooy ulaika humul muuminuuna xaqan léegi moom fee ne leen lahum maxfiratun wa risqun karim fii nag moom wax ji sax daa gën a matale moom da yàlla da cay dolli boo xam ne ñëwul ci aaya bee ulaika humul muuminuuna xaqan lahum darajatun hinda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim nga xam ne yàlla li mu wax ci fii sax waxu ko ca fee fee dana lahum maghfiratun wa rizqun karim fii mu ne lahum darajatun hinda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim te loolu nag kenn génnu ca képp koo xam ne li yàlla wax fii critères yi yaa ngi ci yow su boobaa loolu day dox ci yow yow su boobaa loolu day dox ci yow su dee critères yi yaa ngi ci rek yow lii yàlla wax nii yow day dox ci yow kon wax dëgg yàlla mbir yi moom li ci am solo mooy gën a bàyyi xel rek ndax maam di ñëw di wut a dëggal seen téere yooyu moo tax ñuy indi yenn wax yi nii te seen téere yooyu wax dëgg yàlla nag yàlla daal lu mu waxul nit ku koy wax it moom ci njort képp nga ko teg li yàlla waxul ci mbir ku ci wax yenn wax ay ñii ñoo gën ñaa ñoo gën ñi loolu ku ko ku koy wax ci njort rek la ko teg ndax xëy na li may wax comme nit ñu xëy na gisu gissuñu histoire te su ñuy gis histoire it ñu bañ a tànn ceeb di yem ci yenn téere yi waaye di dem di xool ñu jiitu ñëpp li nga xam ne moom lañ wax ci xeet yooyu. bëri waa na ñoo xam ne maanaam yonent bi bi mu fi bàyyeekoo organisation yi fi nekk après ñoom participé wuñ ci parce que xam nañ ne loolu du njàngaleen yàlla te ñooñu presque kenn du leen tudd ci mbir yi moo tax affaire yi moom li am solo daal mooy xam li yàlla wax te yem ca rek ndax xam ne ci ay détails yoo xam ne moom solo si bëriwul moo tax man daanaka du may bëgg di wax ci yooyu. waaye daal dëgg-dëgg am na ci yoo xam ne moom ku koy saxal ku ne ci njort képp nga ko teg tegoo ko ci loo xam ne lu maa tegoo ko ci lu wér daal ndax yàlla moom ay waxam mooy li wér ci diine li mu wax moom mooy li wér lu mu waxul nag daanaka nit ñi moom ay nattaleeg tollale rek ci la ñuy nekk te yooyu moom dëgg-dëgg njëriñ la amu ci daal macha allah sant yàlla kontaan nañ trop jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu leen nuyu di leen cher waa Face au Destin. ñu déglu seen audio yi. ma ne tey yéen a ngi ci saxaaba yi yéen ngi ci saxaaba yi rek diggante wahabis yi lay doon ak siyan yi waaye daal ñàkk yeewu dong la de da ngeen dem jëlal seen bopp siire yi déglul ko seen bopp liiral ko seen bopp te bañ a topp uh, yenn waxkat yi nga xam ne dañuy tànn la leen neex rek di wax xam da ngeen di gënalante saxaaba yi naan diwa gën diwa gën diwa gën moom comme yàlla wax ko yonente wax ko rek wax dëgg yàlla kenn waru cee xas kenn waaw kenn du la indi daal firnde joo xam ne daan la Aboubacar moo Omar a ca tege euh, euh, nu ko waxeeti sax euh, waa ki ci tege ak ak Seydina Ali ak Ousmane Seydina Ali yooyu yëpp du lu wér du lu wér ay ay wax la rek ñu fi teg waaw yooyu ay tuq la rek ay naxal léegi nag bu demee nag ba loolu jàll nga xam ne loolu wérul ku mu neex tànn ki la neex waaw mooy mooy mooy mbir yi ki bëgg a tànn Omar na tànn ki bëgg a tànn Aboubacar na tànn ki bëgg a tànn Ali na tànn ki bëgg a tànn na tànn ko defee da ngeen di am jàmm loolu mooy siira yoon wi waaye eh, ceen googu ñu teg ci ceen googu du ceenu dara dañ ci doon nax nit ñi rek nit ñi ne yeew na léegi gëstu nañ ba xam ne ok politique moo fi def loolu rek du dara du lu yàlla wax du lu yonante wax kon yeewu leen ci yéen wahabis yi bu ko dee werante yi war naa mën a jeex léegi war naa mën a jeex ndax kii tànn Seydina Ali da koo teg fenn da koo teg ci bëgg-bëggam waaw ki tànn Omar it noonu comme que ñoom ñëpp kenn mënul taxaw ni maa gën kenn wax dëgg yàlla kay bàyyi leen kenn ku tànn li ko neex loolu la rek te ngeen yeewu nag bàyyi dof-dof la gi ñu leen di di leen wax naan la rafet day saaga rafet day saaga déedéet bu rafet day saaga ni wax leen ba xam yi fan la jóge da ngeen di tàmbalee cee cëslaay la départ ba ren ba fan la saaga jóge yooyu boo ko defee da ngay am da ci am solo da ngay di xam ni képp kuy saaga yi da koy bàyyi rek bu boobaa yomal xiyaamee yàlla faj ko ndax bu nee la léegi teg ay hadis yu wér yu wóor ñu wax ci ni la saxaaba bii daana saaga saxaaba yi bay digle ñuy saaga saxaaba muy ab saxaaba comme ñëpp bari ñu ko bëgg topp ko mu ni dee leen saaga diw ñii bu àjjumaa yi dee leen ko saaga digle ko ay waay loolu ko dem ba yi xam hadis yooyu nga yër ko boo gisatee as raafida ngeen koy waxe xaw ma ku mën di doon bu taxawee di saaga ab saxaaba yi ngeen war koo xam ni rek da ko doon ne ci ku makka dëgg yàlla jërut jërut daal werante man jàpp naa ne boo amee tuuti xam-xam ak xel jërut werante ndax même kuy saaga fi ne saxaaba yi rek ci saxaaba yi mag yee ko jële loolu dañ ko war a bàyyi xel bu ko defee da ngeen di noppalu ci mbir yi li ci des it maa ngi dégg xaw ma kii gën kee gën kële gën kii la yonante bi digal ci diggante euh, xuntuma ki ànd ak yonante ba toog xaar jaasi jeeg ba tey daanaka bu ngeen amee xel xam ni <laughs> dëgg yàlla euh, man de bu ma doon tànn lay tànn bu baax a baax moom mi taxaw xaar dee ndax bu ne moo tëdd ci lal yonante bi tok di xaar nga xane mom bu ko fa jaas ji fekke day de bu ko nit ñi fekke day de wax yalla ki and ak yonante bi dem laqatu ji mom rawale nañ seen bakkan bakkan nak yaaka naa ko rawale ji mom ah, ki tok jaay bakkanam mo la wara gën bu de ci fofu ngeen ko tek ko defé ngeen yewu ji loolu tay waxtaan di dal and ak tay te baña top topp yi nga xamne mom la wahabis yi magi jitu wax manam dañ lay dawlo nit bañ nga deglu ay mbir bañ bañ nga yewu bañ nga xam te bo xamé légui da nga nan do nit ku dal ngay don do mer do tiit do saga do xasse ndax bo tànnee ren bi rek xam la xew ci ñom ba nopp bo ñëwaaté ku ndaw bu dé wax da ngay xamni ki xamul wala it ñu mag lay roy rek ñom lay seen seen seen sunna lay top moy saganté seen bir deba wax deba deba deba sahaba mom war naa ndax ñu wara tej moy tan sa ku la neex la rek kenn ku ne yaay tan ki la neex am nga ci premier droit ni diw moma gënal waaye diw mo fi gën mom la kenn indi. waaw diw moo fi gën moom sa coobare rek doo ko teg fenn waaw nag léegi nag équipe nationale nag bu ñëwee kay comme neex tànn Sadio Mané comme neex tànn Mendy gardien bi comme neex tànn keneen ak koy te koyaate loxo ma loolu la rek ñoo bokk équipe bi <laughs> saa bay ay junni junni la kay bu ngeen mënee tànn ñeent kay bàyyi ña ca des te boo demee ña ca des ñëw ngeen tànn ñoo gën fuuf gën a na sonn gën a dàqal liggéey gën a gën a am ngërëm sax nag wax dëgg yàlla lii moom lu fi tànn teg fi rek te ko ci kanamu nit ñi saxaaba yi tànn ñeenti nit naan xulafaa al loolu loolu ay wax la rek wax la rek le monde la war a doon ñi doon <laughs> xam naa seen débat yi moom du am njëriñ ndax waxaa bis bi jéem a dàq dalu gëstu xamul tous ci wax te chian bi it li mu wax it du neex a dindi ndax wa ahlul bayti la topp yonente bee ko leeram kooku kenn mënul ko tous loolu la lam cay yokk nag bu ca bokkut yow yaa ko war ñëw taxar di dindi ko sànni teg fële kon nag yow mii di wuyoo chian euh, lii ngay wax ni euh, ah, Seydina Ali waxu ko lii ngay wax ni euh, ñu jàngale téere Seydina Ali waxuñu ko ni wax ni Hussein wax ko wala Hassan waxu ko loolu daal mooy wax bi waaw yeewu ci yéen wahabis yi leen ci nii Aboubacar gënul benn sahaaba xam leen loolu ba noppi loolu ay wax la rek gis nga ko ay wax la ngeen gëm loolu moog sahaaba yam rek jiitey taxul mu gën fi ndax bu gënoon yonente bi da koy bind bàyyi fi waaw loolu la ngeen koy xam bu gënoon yàlla da koy bindal turam bàyyi ko ci alxuraan mu leer ci bopp ñëpp nit nag bu nekk ki ay bokkam ay bokkam gëm ko bëgg ko bu la neexee tànn ko ni moo gën da ngeen di ne rek ña fa neen ca gouvernement boobu eh, Aboubacar moom moom leen gënoon a jubu moom ni moo gën waaye tekkiwul ni moo gën de déedéet ni ngeen tànne woon ni alquran ak sunna kitaabullahi wa sunnati gis nga loolu ni mu ñàkk wéré di nga xam ne wérub wax ju wéré di la ñu tàmmal ko nit ñi dugal ko seen nopp yi ban tàmm ko te kat yalla mom ni ni hadith yi wax yi gëna wër yëpp na kitaabullah wa itarati ahlul bait ngeen sax ko sanni fele di topp kitaabullah wa sunnati wax joxna wër ne yeewu leen ci yoy bu ko dee ngeen bayyi wérante wi du leen julal njariñ ndax lu ngeen gën di xotal ni gëna metti ci kat yi nga xani ni dañoo fonk sahaaba yi te fekk li ni wax lepp wax deug yalla ci tek ci la koy gaa tek de waaw sha allah seigne Cheikh ñu lay bëgg ñu lay ziar ñu lay ziar sha allah non la gis nga fi bo yeewoo Euh, ci digg bi rek ngay taxaw fu la neex ngay dem ndax ni nga ko waxee rek comme que daal loolu politique la woon te nit ñi dem nañ ba yeewu ni loolu lépp politique la woon waaw euh, ceddo yu njëkk yi ñoo fa nekk ñoo jëlaat nguur ga <laughs> waaw léegi nag bu ñu noppee seen i mbiri bopp la ñuy lijjanti nag teg fa seen niti bopp nit ñi ñoo gën ñëpp nag loolu la rek loolu rek la lay seen waaye xam nga saxaaba yi dañuy nit ñi dañuy saaga saxaaba nit ñi dañuy saaga saxaaba yi ñu doon saagante seen bopp yow kay bu ne la bu ne la yaa Aysa takk na xare ak Seydina Ali kooku ay saakante jib na fa <laughs> wax dëgg yàlla xare ba ay nit dee nit ay thousand dee ma ne la kooku ay saaga jóg na fa ah mahaaba yi gis nga ko diggante moom ak Ali ah? Ali yaa wax dëgg yàlla yooyu jërul jërul jërul jërul nekk di kii ndax boo demee ci siira bi rek da ngay daal di xam ni moom ni doomu aadama rek la ñoom ñëppay jum te ndimbal rek lañ soxla kom ni ko soxlaa ñu ne njëggalal yàlla ndax euh, mooy loolu daal bu ko defee yooyu boo ci yeewoo dootoo sonn li euh, ngay doot sonn mooy comme ni nga ko waxee yow Aliou moo la gënal man mi Seydina Aliou ma gënal fuuf ndax boo toppee siire yi xeex yi mës manqué benn xeex mës ta daw te saaba yi am na yoo xam ne dañoo daw bàyyi yonante bi dégg nga moom mësul bokk ci yooyu te tey jaas yooyu bu fa ñëwoon dañuy dañ koy rey mu toog xaar léegi euh, jàmbaar ni nga ko waxee ba noppi bari xam-xam borom doole borom fit lépp lañ ko taggee kon nag wax dëgg yàlla man bu ma doon tànn ci saaba yi dama naan Seydina Ali mooy sama bes ni maa ne nekk bés ci sénégalais yi nga xam ne mooy équipe nationale bi. Mm. bu ko defee sëñ demoon ba xam loolu maanaam da ngay xam ni euh, diine ji li ko lal ëpp ëpp politique la ndax firnde moo dut am dañ lay wax di la wax dara nga di ko topp di ko topp du am reen bum mu sax. wallaay ndeysaan ay wax rek ko fa samp loolu nag bu fekkee doole bu il ngay gëstu ci côté yëpp waaye nag sénégalais yi dañoo nanguwut loolu ñoom nanguwut ñoom. fini murid bu xasee ba murid du jéem sa gëstu yëfi tijaan da ngaa war di roq-roq ne di dugg ci ini ini ba xam ñu leen wakil waxal dëgg la wala ñoom ñu ñuy wax ñoom dëgg la nga jéem xam seen mbir rek ni la bu ko bu ko murid khas itu jangan nga ni déedéet la mu wax dëgg la déedéet fi ne wahabis bu xasee euh, ñu euh, ko waxatee ab ab ab chien da ngay jéem a wëri moom boo xam lan moo tax muy xas chien bi ndax chien bi xanaa du xëy di saaga rek ak lu di mel mel bu deng deng du xëy xëy di saaga est ce que moom defuñu ko lu ko raw xaj càllale ga mën naa am ñu ne la ah ki mu doon topp day ay saxaaba daanañ ko saaga yi jamono xaj na moom lay fayul ndax ñoom daal saxaaba yi bañoon nañ ko daanañ ko def lii daanañ ko bundu xataal daanañ ko nangam nangam bu ko defee sa xol dana wàññeeku da nga xam ni adduna kat nii lay demee wax dëgg yàlla ñoom jubóog àndandoo fi am xuloog meroo xeex ak kon xaj na ñooña ci loolu lañ toll am na ñoo xam ne ci lu yi lañ toll ba léegi di fayul ñooña te waruñu koo def it nag muy ak tooñ waaye loolu it ki wut nii da ngay nekk bu jëf rek wala yooyu déedéet da ngay am bàkkaar rek waaw yëf yi buñ ko leeralee rek maanaam kenn ku ne di nga xam fi ngay toog kenn ku ne di nga xam fi ngay toog nit nag bu la neexee boo gisee mbooloo tànn kenn ni mu ma gënal waaye nag moo fi gën moom <laughs> wax dëgg yàlla da war a indi lu wér loo xam ne yàlla ko xoolal ko yonenteem waaw loolu rek la ko defee nag euh, waa bani umayya yooyu daal gars yi politique lañ leen tegal ci kanamu nit ñi rek wax dëgg yàlla waaye du ngëneel maa la wax nii ndax du la indi benn firnde nit ñoo la gën gaañ. waaw salaamaaleykum. mbaɗa mbeg ni ka seeru baax ah sëñ Bada Mbengue diina ji amul ay donnante de <laughs> lii mooy moo lay wonal ne islam moom dañ koy yàgg a coup d'état diggante siyaat yi ak ahlu sunna wal yi parce que ku nekk mu ngay ràcc jëmale sa morom te yonente bi fekkoon na la doon joxe ndénkaane si diina ji ne dañ ma war a donn yaakaar naa balaa muy joxe ndénkaane yàlla moo koy war a signal ba pare ci alxuraan ne ko ah soo fi bàyyeekoo nag nañu topp nañ la nañu topp diw sàngam mii soo fi bàyyi mu donn la waaye diina ji amul dondante de waaye gaa yi ñoo créé loolu noonu ñu foofu mooy sa njëlbeen ba ñaari maanaam ñaari ñi nga xam ne ñoo créé maanaam pàcc pàcc si diina gi mooy axlu sunna wal jamaa ak axlu siyaan ñi koy axlul bayti ñaar yooyu foofu la ñaari pàcc yi suqekoo ba pare parce que nekkul lu fi yonent bi bàyyi woon waxatu woon fenn ci alxuraan fu ñu mën a gis na yàlla mu ne ko su ma fi bàyyeekoo soo fi bàyyeekoo ne la diw sàngam doon waaye yonent bi fekkoon na def ko doon wax dina ko wax mu leer nàññ nga gis ko ci alxuraan mu signalé ko léegi mu bàyyeekoo fi nañ kay yi di xuloo kii lu ne rayante seen biir ak lu ne. ay saaba yu bari ñooy faagaagal leen ah léegi ñoom ñoo ko def ndax fekkoon na yonente bi waxoon na leen ne ah su ma fi bàyyi ko ñii ñoo may doon kon jafe naa jafe-jafe yii nii yépp gaa nekk di ngiiroo ŋaayoo du am kon du am si yéene ji waaye yonente bi moo ko waxut waaye ku si nekk ngi xaj jamale sa boor ah ba ñeneen ñu ëpp ñu ëpp ñëpp faagagal ñeneen yi bañ ñëlé nak ñun yow di siyaa yi ñun kurel gu ndaw ahlu sunna wal jamaa nak manam paga leen nak ba ci ño dem ba law ëpp ñeneen ñi nak légui nak am seen njàngale ñu ñuy teural ñu dem am démé ci benn mbor bi am seen njàngale ñu ñuy teural ñomit lool moy dox ci aduna waye islam deug deug luñu faga faagagal la lu coup d'état la islam dañ ko coup d'état ku ci nek nak mom ne fi ci aduna war nga setantalat bu baakha baakha baax a li ñu delo ci yeneeni téré yu wut ak téré téré bi te téereb yàlla bi la yonent bi lu toppoon te mom la doon jotali waaw lool moy mbir mi de waaye ko fii ñëw fii di xaj ci jamle sa bopp rek waaw yonent bi diglawu ko fenn giru jibril kamara jibril camara kon yow yaangi ci groupe bi yeah laa la deug yaangi noy ci kaw suuf yalla ci <laughs> lay ziar baax baax Eh, yaa ngi may tooñ de Cheikh Mbacké Sakho Cheikh Mbacké Sakho de slogan boobu la ma bëgg a yëkkati xam naa dama bëgg a def doomu bàjjen fan yi mi ngi nee na damay damay lëntal damay lëntal la xuma naa yaakaar naa noonu la ko waxee waaye daal nee ko li may laqatee gën a leer de <laughs> Cheikh Mbacké Sakho daal léeg mu laxas lu garaaw roof ci rondal ma ñëwee dama koy laqarte ndànk-ndànk xam naa moo ma léegi damay lëntal ah yàlla de <laughs> ñu lay ziar bu baax a baax waaw yëf nag noonu la de léeg gi mbir buñ ko doon wax nit ñi mu leer rek wérante bi day jeex day jeex mu doon wérante bi day daal jeex tàkk comme que yëf yi moom politique lu bare bare bare bare moo ko law waaye waaye dañ xam ne rek dañ doon politique ci lu bari nag ñu ànd ak ñoom ci lu baax li kenn ku ne ki mu tànn ni moo gën nga ni ko rek moo la gënal waaye ma ne diw mi ma àndal moo ma gënal mu jeex wax dëgg yàlla comme que koo ci topp rek gis ah, lu mu néew néew as savaan sëñ Mbacke Sakho nee na bu ma doon lëntal daal ku mën a lay doon ne ko leral lay def man ma yore lampe gaay di leeral waaw. waaw bana meng bana meeng yow mom jaaxal nga ma di nga ngay meuna waxe waxee ne maanaam eh, kitaabullahi wa itrati mo gëna wër manam eta ita eh, kitaabullahi wa sunnati nga jël ko sànni ko tek ko fële léegi yow yow si foo tënku si waa eh, kitaabullahi wa sunna nga tënku di <laughs> ba pare nga ne wër be mo gëna wër te ya nga tënku fofu waaw ah, loolu moom dafa may jaaxal li <laughs> Jibril Kamal ñu lay nuyu la ziara waaye yow si yaay dañuy moromu ay ay wahabis yi loolu kay bokkuñu sax loolu kay xanaa adduna kay mooy dox maanaam boo yor xaalis amoo mbooloo sa jëf day sakk rek waaye wahabis kay bu xaalis jeexoon ak nguur gi njëkk yor ci ba fa yonente bi jógee ñoom mënoo jël ci ñoom dara ndax dëgg yàlla ñi leen topp wax ji ñuy wax ji ñuy nettali moom amul solo daal lépp dictateur la lépp dictateur comme ni nga ko si yaay ñoo ne ci dëgg ñoo ne ci dëgg bu wér ndax Eh, bo seede Seydina Ali mo gëna a yonent bi ci deret di léram té mom la bokkal mbalaal ma nan koy waxé ba euh ay domom ci ay sétam mi ngi jaar ci waa ahlul ñoo ñi nak ñoo waa ahlul bayt ñom ñoo fi wara a nekk wax dëgg yalla bu dul wóorug diiné sax ñom ñoo fi wara ñu war leena sélal ndax bi ci ñom la des ba nopi ñoo leen ëpp xam-xam foofu ci njàng bu njang ci ay ñoo dakk jang ëpp xam-xam eh, gëna ndax ñom liñ leen mëna a moy mooy benn benn yi saga sahaba la ya-, laa yaakaar waaye doo leen sikki ci sacc doo leen sikki ci ray nit doo leen sikki ci terroriste bari na daal lu gën a wahabis yi lool wax deug yalla te benn benn yi saga it xaj na boo toppoon laaj ngeen seen deug dëgg la ko waral dañ la ko wax wa kon chian yi duñu moroomu wahabis ñu sax comme yalla ak yalla wahabis programme la rek luñ fi tek waaw luñ fi tek la rek maanaam doon def naan manam bu xex bur lu wax non la ay soppi sariya bi lu bëree bare bëree bëree bëree bëri kon ñooñ chiant yi duñ seen morom ci dara ñoo leen gën a laabir gën leen a mën a jaxasoo nit ñi leen gën a gën leen a xam gën leen a euh, mën a jàngale li nga xam ne mooy diine waxaat bi daanaka lépp baat bu neex lay def maanaam alxuraan mu defar baat ba muy riir comme moto buy accéléré li ci des lan la wax ju bëri ak di xaste ak di wane mbooti jàmbur maanaam ñaaw ñaaw càmbaru jàmbur loolu rek mooy waxtaan wahabis boo ko ci dindi nag jeexal na amut xam-xam <coughs> waaw moo di jàng waaw li ngay wax day ñu bare nga koy wax dañ naan la diine ji kenn du ko doon ba ci waxaa bi si sax loolu lañ lay wax dañ naan la diine ji du ngir donante ba moo tax sax ñoom ñu ni waa ahlul bay ji mënuñ cee jot waaw bi ñu waxee ne diine ji du ngir doonante dañoo ñëw doon ko ñoom it dañoo ñëw daal di yëkkati Aboubacar as-Saddiq teg ko ah mu toog place yonante bi kon doon na diine ji di dogal di tere di digle <laughs> muy loolu kon dañoo waroon a bàyyi diine ji rek booba kenn ku ne dem bàyyi li sa bàyyi kenn ku ne dem sa ruq ku la mën a topp topp la ku la a topp kenn ku ne doxol ak sa morom moo tax mbir yi léeg-léeg koy dégg xam ne dañuy wax rek waaye li ñuy wax ak li ñuy jëf comme yàlla ak yaal yi. waaw sëñ Badame ah gis nga ko dem mbir mi daal noonu la tëddee daal lu ñuy bañal ñii fekk ñoom ñu ngi ca kaw noonu doon nongu nag teeku loolu la de loo gis seen seex yi ñuy wax seex seex nangam nangam te soo wax de duñ seen ay seex nangam nangam. loolu la rek waaw li ñuy wax ne moom nit ki moom balaa ngay digle sang dafa war a nga set dafa war a fekk nga set ba pare waaw seen kilifa yi saagagal ñeneen ñi ahlul bayti rey leen dagg ñee bopp yee nangam nangam ah ak paare mbir mi nag waaw am buur yi leen di sàttal ci diine ji waaw loolu la rek soo leen waxee lii yow fan la ko yàlla wax ñu ne yón sosal ko yonente bi nag far seen buur yooyu ñoo leen doon sartal si eh, si mbir yi naan yonente bee ko wax duñ ci mun dara parce que ku wax ñu faagagal rey la ñu bind ay kii yu dul jeex nag sosal ko ndaw leen moom di sos rek ñu si na a doyati waar sosal yonente bi moom ne ba mi takk moom soxnaam si moom juróom benn at la amoon xoolal ma loolu te koo ci wax ñoom est ce que dinañ roy sunna soo fekkee danañ wax ne loolu sunna la lu la leen yonent bi loolu dem takk koo xam ne ni maanaam juróom benn at la amoon ah waxi feebar yoo xam ne ni man man naka la ko mën a jullit mën a gëmee sax soo waxee ñenn di ko dangal nag nag dañ koy loolu du bañ koo dàq nag di ko kii di ko saxal nag bu ko saxal ko mën a yàlla de waaw yu tax yeneen ñi nga xam ne duñ julee di xass yonenté bi naan ne moom pédal fii la ak nangam nangam lu ne wax ko da fekk sen téré yu bon yoy la bayé ko dé waaw mool jàng ah yow gal galgal nga may roof dal ab galgal nga may roof wa légui kitabullah wa ittarati mo gëna a kitabullah kitaabu laa wa sunnati ah, tekkul waaw mais nag dëgg moom bu ñëwee da nga wax rek kom ko man fela far ci kitabullah wa sunnati do bo gisé lu gëna a ngeen ñi nak ñoo gëna wër kom ko yépp yëpp baax moom ngok ngoog <laughs> yow yang lentil deh ah dead lentil lu di ba kuala rek <laughs> ya lu <laughs> gitu, may ah, ya, kamu xam nga ko bàyyi moom am nga lu ñuy wax tega nga waaye soo lu gën a nak tega dem ngoo ci ah man loolu laa yaakaar nit su demee ba nga xam ne na ci len mu dem lu gis lu gën a ya wér kay damal tëgg ko ci loolu kay yaakaar naa mooy gën a ki ah noonu daal yow daal toogal foofu rek moŋee nga def daal da nga moŋee trop yow. <laughs> waaw sëriñ bi ñu ngi lay ziare bu baax dama damay diglu sa vocal bi léegi waaw yaa ngi ciy wax loo ci wax mais yow bu fekkee ne ñàll ñàll boobu ngay wax kay yow ci ñàll nga nekk de yow nekkul ci yoon de ci ñàll nga nekk bu doon da ngaa nekk ci yoon sax nga nekk ci yoon ngay wax ñee dañoo nekk ci ñàll nga ne waaw mais yéen yéen a bokk fu ngeen nekk de muy ahlu sunna wal jamaat ahlu sunna googu nag moo jur eh, yéen waxaaw jur. kii bi numu tuddati waa tasawuf ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk nag ber sa yoon bopp yéen kay da ngeen am xaaj bu mag bi nga xam ne ci ngeen bokk nekk ngeen nekkaat ci yeneen suu xaaj ay xaaj yu ndaw nag yéen yéen a yem rek yéen ñëpp kay yéen ñëpp kenn nekku ci yoon ci li ngeen nekk moom wedd yàlla gu wér a wér la yow sëriñ bi sëriñ bi bul fontoo nit ñi yow sa sunna boobu amul benn preuve ci diine yow seen xaddis bi ngeen di eh, kiyee sax bi ngeen di bi ngeen di tegtaloo sax ñi ñi nga xam ne ñooy muhaddisuna yi nekk ahlu sunna wal jamaat day nañ xaddis boobu wérut wérut yéen bu ngeen fa demee sax xaddis bi ngeen xam ne moo gën a ci yéen sax te ñu bari ci yéen saxal na ne wér na sax mooy topp alxuraan ak ahlu bayti yéen boobu sax moo gën a wér ci yéen bu dee ci seen téere waxuma nag ñu mujj ñi nga xam ne moom défendre kese sunna moo leen tax a jóg ñi nga xam ne nag dañ daan wax naan leen xadis bi wér naa ak wérul sax xadis boobu wérul ci yéen bàyyi leen seen caaxaan yi bu fekkee ne kay ñal la kay ñal la moom ñi nga nekk moom li nga nekk aw ñal la de waaw sëriñ man de wax dëgg fa yàlla de xadis yooy ngay wax sax man damaa intéressé waaye dama damaa xam ne da cee amul preuve quoi waxuma la moom moom jëru nga koy xool moom mënoo ko faa gis mais yooyu laa la wax yi nga xam ne moom ngay sukkandiku sax boo demee ci côté bu si taxaw ma sax yéen amu leen fa benn xaddis boo xam ne bu wér la bi boo xam ne yonent bi danaan topp leen sun amul loolu moom amul fenn da nga naan kay lenn moom boo ko waxee mën naa d'accord da nga naan ñi nga xam ne ñoo ca nekkoon ñoom wéral nañ ko ci seen i téere te loolu moom yomb na moom nit moom boo nekkee ci dara foog nga jim koo wéral waaye bu fekkee yonent bi wala alquran mënoo ko fa wéral mais nak bu dee seen ñaw ci nekkoon ñako sos mom dinañ ko wéral mom nit mom mënoo sos dara nekk ci bo paré té du wér ci do ko wéral voilà waaw ah, sëriñ ah li nga wax ni dé mom sa waxu bokku la rek ma ngi liggéeyuñ fi dara mag ji dé wax dëgg fa yalla liñ andi lool ne leen moy diiné ah taxaw nañ ci taxaway bo xamné dé wax dëgg fa yalla dé ci seen jamono seen mass amu ci mom mais nak amna ci ño xamné mom seen imam di not nit ñi di jaay sàngara ak naan ko lañ nekke woon moom xam naa ne nag yow sama am ci fekkee ci la bokk moom deful dara ci dëkk bi moom. waaw bi ñu ngi lay ziare de na xam lépp jàmm yow nag da wax euh, benn wax bu am solo sax bu am solo bu am solo solo muy ki nga tudd noonu Muawiya moom ginnaaw moom nekk na buur du digle ñii saaga Seydina Ali yaa ngi dégg képp koo xam ne sax jege nga yonent bi wala nga xam ne nit koo xam ne maanaam nit ñi mën nañoo dellu ci moom rek. diine ji leer ci moom sax du du bëgg nga jege nga jege nga du bëgg tamit nit ñi wax ci yow loo xam ne lu baax lay nekk te yow kooku noonu diine ji diine ji indi Afrique ci moom lañ jóge ñu ko indi Afrique ci boppam ci moom lañ jóge ba ci seen sunna googu ngoon di wax noonu tamit sunna gi daanaka mën nga ne ci moom la jógee ndax politique la woon rek moom a euh, euh, sian yi waa ahlu bayti politique la woon rek ñii di xëcc di jëm fii ñii di xëcc di jëm fii moo tax ñu lay xëccal naan la Seydina Omar danaan xëccoog yonente bi ci wax bu alxuraan dikkee ànd ak moom bëgg a yeneen saxaaba yi di la wax ci ñoom ay ngëneel yoo xam ne yàlla sax waxu ko ci ñoom xam nga da xam ne lii am na problème quoi am na fu mu jóge euh, waaw sëriñ bi ñu ngi lay ziarewaat bu baax a baax di la jox seen wàccuwaay waaw loolu moom dëgg la moom loolu moom dëgg la ndax nit ñi it ba ñuy ndaw da daan dégg sax yenn xaddis yi bu ñu ko waxee sax da ngay dégg ñun bokk fa ñu bokkoon bokk da ngay dégg ñooñu naan la lii sax yellul sax nga koy xalaat ci yonente bi waxuma laa nag nga ne da nga koy gëm waaw yellul sax nga koy xalaat ci yonente bi sallallahu mais xam nga tamit dafa am benn problème boo xam ne tamit dafa am gis nga bu fekkee ne ñii ñu ngay tudd noonu waxaab yee xaw ma ñoom moom bu dee fenn ci yonente bi moom loolu moom du dara dara dara ci ñoom fii ci Sénégal sax da ngay gis kenn koo xam ne sax day wax dara buy wax dara sax ba ci yàgg sax bu bëggee pour nit ñi ne nañ ko gëm sax day jékki-jékki ne la yonente bi moo ko wax te araam yonente bi waxu jégewu woko sax mais manam bëgg dëggal waxam sax day jar mu fenn la yonent bi moko wax te yonent bi waxul dara waxul dara dara waxu dal doyna war dal doyna war dal yalla ñu suñu borom jéggal rek wa ok assalamu alaykum ma ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di balu ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yalla mu boole ñu jéggal ma sha allah kontaan nañ trop sant yalla ma ngi déglu ci message yi ñuma transféré am na solo trop mu mel ni message yu Bada Mbengue ak euh, du Diankha mais am na solo am na solo li ngeen di waxtaanee am na solo xam naa dafa mel ni comme ni ma déggee Bada di wax waa ahlu sunna yeeg ahlu chian yi dafa mel ni ñoom ñooy ñoom ñooy werante kon ci mbiru saxaaba yi ah waaye Bada Mbengue de moom li mu wax noonu dëgg la maa ngi koy dégg nag miy wax ay waxam xam moom lëntalkat professionnel la moom lëntalkat professionnel la nee na man maay lëntal moom ñuy leeral <laughs> mais nag gis naa ne lëntalkat professionnel nga mais nag euh, wax dëgg yàlla maanaam li may wax rek maanaam ku yeewu nga parce que loolu ngay wax noonu ci mbiru saxaaba yi ak organisation yi nga xam ne moom lañ tëral bàyyi ko fii maanaam nit ñu donn loolu maam ñu jàngal leen ko ñu gëm ko ñu gëm ko gëmin wu jéggi dayoo jàpp ne léegi jàpp ne loolu lu wér la kat lu amee preuve naan diw moo gën ci saxaaba yi topp ci diw topp ci diw te loolu yëpp classement boobu ab classement la rek ab classement la comme soo ñëwoon Sénégal fii ñu ne diw moo dàq football tekk ca diw teg ca diw c'est la même chose ay nite ko defal seen bopp loolu du njàngaleem yàlla du dara te kem ni nga ko waxee noonu la su doon lu wér la kay su fekkoon ne. Euh, maanaam yooyu dafa wér konoon yàlla da koy jàngale bàyyi ko fi konoon yàlla da koy jàngale jaarale ko ci yonent bi yonent bi jottali ko bàyyi ko fi mais yooyu yëpp amu ca mais nit ñu bari loolu comprendre ruñ ko parce que gars yi seen wuute bi njëlbeen gi wuute politique la woon wuute politique boobu nag maanaam dafa dem bay mujj gi mu yegg ci wàllu diine yaakaar naa ay 2017 2018 maa ngi wax ci vidéo yi di wax ne. maanaam diggante chia yi ak sunnit yi maanaam xuloo buñ fekkee wut moom la ñuy mottali ñoom xuloo buñ fekkee wut la ñuy mottali xuloo buñ fekkee wut la mottali te nag ku gëstu tamit di nga xam lenn ne chia yi ñoo gën a ñeme téere sunnit yi sunnit yi dañuy ragalloo seeni ñoñ téere chia yi te li ko waral ku gëstu da nga koy xam ndax dañuy ñëw di expliquer ay histoire yu amoon ca booba te sunit yi ñañuy jàppee ay maam jël di wax ay saxaaba teg leen fenn fi ñooñu lañ lay tudd seeni tuut di wax lañu ñu defoon ci ginnaaw bi fi yonent bi bàyyi ko te yooyu ay mbir la yoo xam ne mu ngi ci téere chiites yi te gars yi ñemewuñ ko sunnit yi ñemewuñ ko même bi ñuy wax ci affaire pratique damay wax ne sax chia yi ñoo gën a jege alxuraan sunnit yi mais comme ni mu demee sunnit yi ñoo àndoon ak buur yi ñoo ëppoon doole ñu notoon ñële ëpp leen doole maanaam cloître leen ci ay surface yu tuuti jël seen idéologie yi nga xam ne buur yi ñañ àndaloon ñu leen di tuddee ay boromi xam-xam ñu sos ay wax di ko moomale yonent wa di ko askanale yonent bi jël loolu nag lu bare bare bari ci diine ji ñu soppi ko créer ay àtte maam diine ji yépp daanaka lu ne ñu ne dafa xaraam te xaram gi yépp ngir ci nit ñi la mais xaramul ca ñoom ña nga xam ne ñoo doon jiite di buur yi yooyu nag lañ jël tasaare ko ci àdduna bi moo dem presque fu ne moo ñëw ba ñun suñu réew yi mooy li ñuy wax njàngaleem ahlu sunna wal jamaa nit ñi nag jàppee loolu diine maanaam naan dañ koy défendre rek nangam mooy li ma doon wax fan yi rek su ma gisee sax kuy wax ne day défendre soudisme moo xam ku bokk ci tasawuf wala ku bokk ci salafiya man reetaan sax daf may jàpp te dañuy jàpp ne ñoom xam nañ dara daal <laughs> loolu moo ci gën a yéem ba yow mi nga xam ne sax yaa ñëw di joxoñ loolu dañ naan yow yaa xamul dara ñoom xam dara ñoom ñiy défendre sunnisme <laughs> nga xam ne kii défendre sunnisme boobu da ngay xam ne kii mooy victime bu mag bee mag bi yow jàpp nga ne lañ la jàngal noonu xam-xam la te da koy jàpp yëkkati ko jàpp ne kii ñëw di joxoñ loolu sax moom la muy wax du dara moom te fekk ne yow yaa taxawut fenn soo gëstu woon li nga gëm cosaan la xam la ko jur xam li waral ba idéologie boobu juddu di njàngaleem ahlu na wal jamaa di nga xam ne loolu du tuus du tuus tuus du ko ndax ba demee ngi li xam wax na benn wax boo xam ne moom ci ay xeetu lëntalam la moom xam nga ko moom moom xam na ne maanaam kitaaballahi wa sunnati ñoom sunni di ñoom seen bopp ñoo ne xadis boobu wérut ñoom ñoo ko wax de kenn waxloowu leen ko sunni di ñoom seen bopp ñoo ne kitaaballahi wa sunnati seen xadis boobu wérut ñoom ñoo ko wax waaye nag ba demee ngi dégg mu ne kitaaballahi wa hitrati moo wér mais du kitaaballahi wa hitrati rek soo demee ci kutubu sitta yi seen xadis boobu dafa am ñetti riwaaya xadis boobu dafa am benn bi mooy bi sunni di di layee kitaaballahi wa sunnati ñoom seen bopp ñoo ne wérut te ñëwul ci seen juróom benn téere yi nag maam xadis boobu noonu maanaam ñëwul ci seen juróom benn téere yi bii wax kitaaballahi wa sunnati ñaari xadis ñoo ci ñëw ci seen kutubu sitta yi benn bi di wax kitaaballahi wa hitrati mooy li chiit yi gëm beneen bi di wax kitaaballahi kese loolu yaakaar naa ko dem ci euh, téereb muslim deux mille huit cent deux mille huit cent dix huit xaw ma deux mille huit cent waaw deux mille huit cent dix huit wala xeet boobu su ma paree après incha allah dinaa leen yónnee référence bi ngeen xool ko bi nga xam ne day wax kitaaballahi kese te loolu mooy li wér boobu mooy bi wér kitaaballahi wa hitrati mooy li chiiti gëm kitaaballah mooy li yàlla jàngale noonu la noonu la mbir mi demee kitaaballahi wa sunnati mu ngi ñëw ci mu muwatta malik te waa ahlu sunna ñoom seen bopp ñoom ñoo koy layee te ñoom seeni muhaddisuun nee nañ xaddis boobu wérut léegi nag dangay gis ne dañuy ñëw di ko wax ñi leen di topp te ñi leen di topp xamuñ ci loolu dara ay victime lañ dangay gis ay magum jëmm ñu ñuy tuddee borom yi xam-xam da ngay toog ak ñoom wax la ko ñu xulli la ay bët parce que musuñ ko dégg musuñ dégg na sax xaddis boobu wa ahlu sunna sen bop dañuy wax ne wérut ta xamuñ ne sax hadith booba ca bopam ñu ci bari xamuñ ne sax hadith bobu ñëwul ci sen kutubu sittay yi ci Muwatta Malik la ñëw te ñom nenañ wérut kitab allah wa hitrati bi nga xamne mom la shi di gëm mo ñëw ci sen 6 livres de référence yi ak bi nga xamne day wax kitab allah kesse lool mom ñëw na ci yenen téré ñëw na ci muslim ñëw na ci yenen téré mais kitab allah kesse damay nu wax ne sax maam yiin sax su fekkoon ne comme ni Bada Mbengue nga wax noonu soo déggee mu ne maam kitaab nu mu tudd nu mu tudd waaye kitaaballahi wa sunnati wérut kitaaballahi wa xitrati moo wér moo ko tey xam nga moom moom moom jàmbaar la moom day lëntal maam day day waaye tey it day lëntal ama yaa ngi dégg mu naan léegi maam mu naan wahabis loolu affaire wahabis de loolu affaire ahlu sunna wal jamaa la boobu wahabisme judduwut boobu li ñuy wax wahabisme judduwut li ñuy wax salafiyé ni lolu judduwul bobu li li amoon mooy ahlu sunna wal jamaa idéologie bobu mo amone ginaaw gi nak ci biir ci la yenen yi juddu ay li ñuy wax wahabiyya wala ñi di wax salafiyya ak li ñuy wax ay tasawuf ak yoy yep ginaaw gi la juddu yoy yep ginaaw gi la juddu ci biir mais so démé ñom ci sen téré wa ahlus sunna ñom sen bop waa ahlus sunna manam xaba nga Bada Mbengue moo ngi koy wax man mi yàgg naa wax da bay wax ne waaw lu sunna dañoo am benn problème même soo xoolee seen téere yi gis seen juróom benni téere yi auteurs yi xam naa paree su fekkee ne euh, dinaa xool am na benn photo ma ci yor danaa leen ko yónnee ngeen xool ñi bind seen kutubu sit yi dëkk yi nga xam ne fa lañ bàyyi ko amu ci kenn ku ci doonu ko arab kenn ci ñoom du arab waaw nga ma chiens yi côté yiñ dëkkee mooy perse yi presque ñoom soo xoolee ñi bind seen téere yi foofu lañ dëkkee ba mu doon lu a non ah du baax ñu bind seen téere yi ña wax na ñoo bind seen téere yi loolu moo gën a wóor ña ñuy wax na ñoo bind seen téere yi maanaam côté boobu lañ dëkkee ña ñuy wax ne loolu mooy li wér waaw ñoom ay wax rek nii rek la ñuy jël di ko sànni noonu te la muy wax ne su dee ci wàllu xam-xam même ba ci wàllu science laa wax soo demee ci wàllu science moo xam ci wàllu euh, moo xam moo xam wàllu technologie wala nangam da ngay gis ne ñële ñoo ci gëna avancer avancé mi chiites yi lu aju ci walu xam xam-xam ñom ay gëstu kat lañ ñu mëna xóotu ci xam-xam lañ waaw ñu mëna xóotu ci xam-xam lañ te ñomit moy li ñuy wax ne xam nga tubaab day wax ne manam ñi gagné ñoy bind histoire moy vainqueur yi ñoy bind histoire vainqueur yi nak mo doon wa ahlus sunna wal jamaa ñom ñoo ñoom ñooy waa sunna wal jamaa ñom ñoy vainqueur yi waa ahlu sunna wal jamaa nag ñoom ñoo bind histoire wax lu leen neex mais soo demee ci chiites yi ñoom la ñu bind waa ahlu sunna ñoom ñemewuñ ko te damay wax ne kuy gëstu jëlal li waa ahlu chiite wax ci histoire jël lu waa ahlu sunna wax ci histoire nga jël ñaari waxi teg ko yàlla xam na ne képp ku ci gëstu histoire <laughs> am naa sax benn livre pour ñi nga xam ne boo xam ne sax c'est boo xam ne c'est en France bi mu génn loolu sax bi mu génnee yàggul benn ndaw su benn tunisien bu tudd Hela Wardi am na benn benn benn livre bu mu bindoon di wax tuddee ko les derniers jours du prophète maanaam xëy na ku mu intéressé après su ko waxee suñ ma ko waxee incha allah dinaa leen yónnee PDF bi su ko defee ku mu intéressé Mouhamed dina ko mën a liiral boppam mais gis nga bis boo leen liiroon histoire. mooy li may wax gis nga diine ji su dul woon alxuraan yàlla xam na ne su dul woon alxuraan ku lii téere yu weddi ko gis nga lii ma leen wax ni gis nga su dul woon alxuraan ku lii téere yu weddi ko maanaam da nga naan islam wérut téere yii nii li xew ak ña ñuy jàpp gis nga nit ñi nañuy jàppee ay référence ci diine soo delloo ci histoire nga gis ñoom la ñuy wax ci seen biir ak la ñuy wax ca ñoom yow diine ji ngay weddi moo tax soo demee ci dëkku naar yi loo xam ne ñu bari duñ ko wax soo demee ci dëkku naar yi dangeen di gis ne ñu bari ci nit ñi dañuy commencé di bàyyi islaam bàyyi laa la di doon ay ate am na ñu ci bari léegi ñoo xam ne yàlla defal na leen ndimbal ñoom dañuy commencé di gëstu alxuraan di tënku ci alxuraan mën naa wax ne alxur ñooñu alxuraan moo leen sauvé ndax dañuy commencé di dem di dañuy liir téere yooyu lañ fay liir nekk musiba gu mat sëkk ñu dellu ci alxuraan di ko bàyyi xel loolu ñëw di corriger maanaam di maanaam ñëw di weddi lañ liiroon ci téere yi waaye su doon téere yi rek ku ci yemoon di ko liir islaam ci boppam ngay weddi da nga koy weddi danga naan lii moom mënta wér ndax waxuma dara waaye ci wàllu moral rek moral maanaam jikko ju rafet kepp ak doxalin wu rafet kepp soo demee ci téere yi suñ waxee ci gaa yi ba ba te té te man li ma gën a jaaxal foofu la nekk mooy maanaam téere yi ñi koy bind dañuy wax ne gëm nañ ñooñu mais nag comme li ñuy wax ce soo des faits historiques suñ koy relater dañ koy relater comme ñoom comme ni ñu koy jàppee comme ni mu demee donte man nag yooyu man man mën naa koo bañ a gëm parce que histoire moom comme li ñu wax c'est une féerie de mensonges sur lesquels on est tous d'accord yu ci bari parce que yenn histoire yi ñu koy nettali en réalité fekkee wuñ ko xaajuñ koo fekkee sax mais soo demee ci téere sunnit yi li chiites yi gëm kitaaballahi wa itrati moo fa nekk ak li yàlla jàngaleel boppam mii kitaaballahi kese ñoom la ñu gëm kitaaballahi wa sunnati nekkul ci seeni juróom benni téere xadis booba ñetti riwaaya ñaar yii rek ñoo ñëw ci seeni juróom benni téere kitaaballahi wa itrati ak kitaaballah ñoo ñëw ñoom ci seeni téere kitaaballahi wa sunnati ñëwul ci seeni juróom benni téere mooy ci seen six livres canoniques yi mooy yi nga xam ne mooy référence waa ahlu sunna wal jamaa seen référence du alquran quoi seen référence mooy téere mooy juróom benni téere yooyu léegi nag lii yow soo ko xamee ñu lay doxloo ci loolu nga gëmoon loolu dem ba benn jamono nga gis ne sax moo ne ñun kat suñ idéologie bi ñu doon gëm loolu lañ ñu ca doon wax soo delloo ci téere yi nga xam ne ma maanaam waa ahlu sunna ñoom lañ gëm loolu ca boppam doo ko ca fekk lii chiites yi gëm nga fay fekk ak li nga xam ne moom la yàlla waxal boppam ci alquran te comme li Bada Mbengue wax dañ naan la ñoom dañ doon liñ doon bañal Ali ak ña ànd ma lañ doon bañal ña àndoon ak Ali mooy diine ji kenn du ko doon waaye ñoom boobu nag liñ doon wax kenn du ko doon ci deret donte loolu tamit dëgg la diine kenn du ko doonu ci deret waaye beneen doona lañ teg di xilaafa goog it c'est la même chose wérut ndax yonent bi dañ koo yónni kon moom ci boppam sax munul tànn ku koy wuutu su amoon ku koy su waroon a am ku koy wuutu ka koy yónni moom moo koy tànn. waaye du moom mooy doon ku koy tànn waaw waaye nag li muy wax nii lii Badam Mbengue di wax nii ne gaa yi da ngeen a war a yeewu loolu moom mooy dëgg gis nga gis nga seen groupe bi ku mel ni Badam Mbengue mii ku am solo la parce que nit la koo xam ne mën na tax ba dëgg leer ci bopp nit ñi ñu xam ne bari na lu daan tax ñuy xëccoo di xiiroo ak a ŋaayoo suñ gëstu woon rek danañ xam ne li jarul xiiroo jarul xëccoo jarul ŋaayoo ndax ay nit yu doon dund ci benn jamono la ay intérêt politique boole woon leen dafa mel ni comme yow léegi nga juddu rek ñu ne la problème bi amoon diggante Senghor ak Mamadou Dia maanaam nit ñi di ci nekk di ci wax yow nga juddu léegi ci année nu mu tudd waaye comme comme nga juddu ci année quatre vingt wala année quatre vingt dix yi jël problème boobu bëgg ko yow def sa problème mu bopp di jaamaaloo ñeenaan naan non fii maanaam fii Senghor mooy waa ji ñii naan non Mamadou Dia mooy waa ji ngeen nekk ci loolu nag. xëccoo politique la ñu dem ba mu yàgg sax ñu ne waaw léegi yéen sax comme da ngeen di lekk ay ceebu jën ak nàngam ñun dootuñ lekk ceebu jën ñun leneen lañuy ñuy lekk ay domada wala maafe la ñuy lekk mbir mi foofu la tàmbalee de wuute politique la woon mu ñu dem ba boole ci diine groupe bu ci ne di créer ay loi boppam di créer ay attay boppam chiites yi nag su dee dëgg rek ñoo gën a jege alxuraan te it ñoo gën a honnête parce que même ñoom soo demee ba ci julli dama koy wax bi muy wax bi ñuy wax ci wàllu julli maa ngi koy wax même soo ba ci julli chiites yi dañ naan la ñaari ñaari ràkka moom la yàlla digle ci alquran ginnaaw gi lañ ci dolli juróom-ñaari ràkk ñoom dañ naan yonent moo ko dolli mais dañ naan la ñaari ràkk ñaari ràkk moom la yàlla digle ci alquran ñoom noonu lañ koy waxee si seen téere yi mu leer nañ man damay wax ne sax lu gën a garaaw damay wax ne sax sooy gëstu da ngay dem ba gis ne bëri waana li waa ahlu sunna di def ñu ngi ko calqué ci chiites yi bëri waana li waa ahlu sunna di def ñu ngi ko royee ci chiites yi bokk na ci su ngeen déggee ñoom ñuy wax loolu yàggul sax ki ñuy wax euh, ki ñuy wax Cheikh Salih Al Fawzan boobu nekk Saoudia moom ci boppam loolu maa ngi yor sa texte bi moom ci boppam waxoon na ko maa ngi yoroon journal bi xam naa mu ngi sama mu ngi sama photo yi xëy na day sori waye Cheikh Salih Al Fawzan mom ci bopam wax na ne comme su ngeen ni julli da ngeen gis ñu wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad gis nga allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad mu ne loolu mu ngi jugee ci shia yi mu ne loolu waruñ diko def ndax mu ngi jugee ci shia yi mu ngi non de mais nit ñi nak xamuñ comme léegi nag maam sunnit yi ñoo ëpp doole ñoo gën a tasaaroo ci àdduna bi nangam ñu naan chi léegi ñu naan leen chi di duñ dara nangam nangam xeet boobu ragalloo seeni nit chiyan yi ne leen ñooñu duñ tus nangam pour lan bëgg nëbb seeni ayib la bëgg nëbb seeni ayib Bada Mbeng wax na loo xam ne soo demee ci téere yi danga ko ciy fekk ñu ne am na ay jamono ñoom imaam yi parce que loo tax sañu ñu créé li ñuy wax jullit ajuma yii nii pour mu nekk benn euh, ni ñu koy waxee maanaam jullit ajuma ak xutba googu lu tax ñu créé ko réellement sax loolu la maanaam pour léegi chaque semaine dañuy woo ñëpp ñu ñëw ñu am discours boo xam ne dañ koy tenir wan leen ni nga xam ne du di leen wax li ñu war a doxalee en noonu la demee loo tax sax ñu créé li ñuy wax jullit ajuma ca bopp. même yenen khutba ya nga xamne mom ngeen di deg ci mo xam mi korité mi tabaski yoyu tamit lolo tax ñu créer ko dañu créer ay occasion pour mën di wax ak nit ñi parce que li badambe nga wax loolu mo don mbir mi yonent bi fi baye ko kenn ku ci ne sa ngeum yaw la moy li yàlla wax ci wa ci aya bële wa muhammadun illa rasulun khad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw xutila in khalabtum ala aqabikum lu ci yàlla tek loolu individualité ci lay delu kenn ku ci ne sa bop wa man yan khalib ala aqibaihi ku ëlbati ko ci ñaari tëstanam sa veut dire que loolu kenn ku ci ne ci yéen ñi nga xam da ngay na gëm ku ci ëlbati ku ci ñaari testanam kon yow sa responsabilité bopp nga yor du responsabilité mbooloo amul kenn ci ñoom ku waroon a ñëw taxaw nit ñi ñëw naan dañuy ànd ak moom mu jëm ci wàllu diine loolu amut du njàngalem yàlla wérul boobu dañ doon wax ne àjjuma bu jot ki war a xutba su ñëwee taxaw li muy tàmbalee muy rëbbaa lii ba pare te loolu c'était une obligation dafa waroon ñëw rëbb yi ba pare doog a tàmbali sa xutba ndax loolu la buur yi tëraloon na mooy règle bi te loolu ngay def amoo ci pexe moo tax yii xam ko dafa war xam ne diine maanaam ku yeewu ci alxuraan xam ko yàlla yow maam yow sax dangay ngay gën a maam da ngay maam da ngay gën a sax tënkuwaat ci yàlla da ngay gën a mën a li nga wax maam li nga wax maam ma da ngay gën a fier doon ab liggéeykatub yàlla fier xam ne yàlla ku xereñ la gis nga diineem su ko dénkoon nit ñi ginnaaw ndawam mi nga xam ne moom moo koy musal ci nit ñi ba nga xam ne message am dana jàgg ba ba ba nga xam ne message am dana jàll diine yàlla su ko bàyyee woon nit ñi ñu war koo doxal amul lu ca mënta tàbbi te yàlla bàyyeewu leen ko dugal nañ ca ñoom seen bopp dugal ca lu ne waaye soo xoolee yàlla ndaw li lay jox responsabilité ña ca topp joxu leen benn responsabilité muy saxaaba yooyu ñuy wax ñi naan kii a gën kaa gën kii a gën kaa gën yàlla joxu leen benn responsabilité ci diine benn. responsabilité ji benn responsabilité ci diine ginnaaw bi fi ndab maa ginnaaw bi fi ndaw li bàyyee ko benn responsabilité yaay benn responsabilité yàlla joxu leen ko ci diine ci ginnaaw bi fi ndaw li bàyyee ko kon li Bada Mbengue di wax loolu mooy dëgg lëntalkat la nag nee ndax dafa mel dama ko bëgg a def doo bàjjen <laughs> waaye du loolu maanaam comme gis naa ne wax dëgg yàlla borom xel la te man yàlla dafa dogal dama bëgg nit koo xam ne maam nit ku bëgg xam-xam maam bëgg dëgg euh, maam te xellu waaw donte nag sax man nee naa la man yenn yi tax nga koy défendre xaw ma ndax pour sa bopp la xaw ma ndax pour lan la wala boog da ngay bëgg xam-xam leer ndax kenn ni ñu koy waxee Sénégal fii loolu mooy seen problème maanaam nit ñi nga xam ne ñoo fi nekk rawatina sax ñi nga xam ne dañoo xaw a jàng sax seen njàng yi di njàngum ahlu sunna wal jamaa te maa nga xam ne ci loolu rek lañu yem ban su ma gisee sax ñi wax di kii nii nangam reetaan sax daf may jàpp dama daan ñii daal ñii daal ñii ñii daal ñooy vraie victime réellement parce que yow li nga gëm jàpp na looluy dëgg ndax loolu nga donn loolu nga fekk say maam nekkoon ci nangam loolu lañ la jàngal nga jàpp na yow loolu xam nga ko te la nga xam noon du tuus du tuus jëmut ci yàlla lu ay nit saxal la lu ay nit saxal nga bëgg jàppee xam-xam jàpp ne yow kii wax li yàlla wax sax moom moo xamul li xew yow yaa xam li xew du lay caaxaan mënta weesu loolu waaye lii ngay wax nii li ngeen di wax nii lu ama am solo te Modou Diankha it lim la wax dëgg la bu ñëw ne kitaaballahi wa itrati mooy dëgg ndax am na kitaaballah rek ci seen xadis yi te kitaaballah kese moo wér <laughs> kitaaballahi waa itrati seen yëfu bopp la ndax diine ji yàlla limi wax dafa leer yàlla ndawli la amal affaire ndawli bimu fi bayiko ko comme li wax naan ay ñom lañu wara war ak ay njabootam li ma dégg bala beeg di wax lolu ay waxu bopam la moko tay waye xam na ne yonent yi bimu fi bayiko wax diine du mbiru deret diine yàlla moy tan nit jox ko message am mu jotaliko su jeexee wéy li yàlla huma muhammadun illa rasulun khad khalat min qablihi ar-rusul fofu lay afa in mata aw xutila in khalabtum ala aqaabikum ومن ينقلب على عقبيه falan yadurra allaha shay'an wa sayajzi llahu shakirin ndaw li bi mu fi bàyyeekoo mbir yi fa la yem de kenn ku ci ne sa diine yow la sa diggante ak sa borom ndaw li amut ci li ngay def benn responsabilité ndaw li li mu amoon responsabilité mooy la mu doon jëf moom ba muy dund te yàlla doon ko ko jottali loo mu koy jottali jottali na ko nag ba mu mat téere bañ ko joxoon mat na sëkk mu bàyyi ko fi dem kon la ca top mbiru nit ñi la de kon kenn ku ci ne yaw la war nga gëstul sa bop li yàlla di wax ci alquran nan wala taqfu ma laysa lak bihi hilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu masula bul top lo xamne amo ci xam-xam ak suñ borom di wax na suñ borom di wax na suñ borom di wax na akuk deg akuk gis akuk xel li lu ñuy laaj ëllëg la ñi nañ xam de waye da ngay gis nit ñi ñenn ñi dañuy dem ba sax dañuy ragal gëstu nit ñi wax yu ñuy wax rek amna ño xam dañ koy ragal déglu parce que dañ naan kii dëgg maa kii mës naa koo déglu benn yoon mais kii damay ragal su ma ko dégloo li ma gëmoon dama koy weddi alors que yaay réalité nit waroo nekk foofu nit danga war a ñemee gëstu parce que yow dëgg moo la war a ñor du wut fooy far man fii laa far wala faa laa far yàlla farloowu la kenn ci nit ñooñu lim la sant mooy moom la mu la wax na nga ko topp. adduna yëpp suñ toppoon ay nit comme ni mu demee nii ñi naan ay chian lañ ñi naan ay sunnit lañ. ci biir loolu ñi naan ci tasawuf lañ nekk ñi naan niw ñi si ki ñi naan diw ñii di wax naan ñun diw lañu àndal ñi naan fii lañ bokk ñi naan faa lañ bokk yàlla bokk loo wala ci yooyu benn yàlla daal lim la doon loo mooy ab muslim nga nekk ci diineem nekk ab muslim te yem ca loolu la yàlla sant leneen loo def sa yëfu bopp la kenn sant la ko kon wax dëgg yàlla waxtaan yi moom waxtaan yu ama ama ama ama ama am solo la macha allah rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax te di ci kontaan trop di nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum